asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal Mamadou Thior nekk taskatu xabaar nekk tamit président bu conseil pour l'observatoire des règles d'éthique et de déontologie wala pour l'observation plutôt ñu fas yéene waxtaane importance bi nga xam xamante ni euh, kuréel gi euh, am na ko di CORED maison de la presse code de la presse euh, carte nationale de la presse bi traitement information bi ci jamonoy Covid 19 bi affaire kilifa ak yeneen i ponk yoo xamante ni soxal na actualité bi daa ñu ko aborder ak suñu invité bi di Mamadou Thior ñu lay nuyu di la dalal jàmm. voilà ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité j'espère que yàquñu sa samedi. non amul benn problème parce que si liggéey bi la bokk. xam nga mm. journaliste amuñu samedi amuñu dimanche. Mm. donc euh, da loo xam ne si suñu liggéey la bokk. te itam ñëw fi pour wax kuréel bi nga xam ne. yàlla def na maa ko jiite loolu dama ci am kontante mhm. di nuyu seen auditeurs yi ñëpp voilà ñu lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité euh, tey jii ñu lay laaj euh, conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie ñu koy dégg exactement lan moo ko tax a jóg lan lañ mën a dégg ci kuréel gi la waaw kuréel bi tudd CORED xam nga euh, comme kuréel la boo xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba yoonal suñu métier tasum xibaar mhm. loolu nag jubluñ ci rek taskatu xibaar yi boo déggee taskatu xibaar journaliste bi ci la bokk ak technicien bi muy liggéey parce que émission bi ñuy def mhm. yow yaa toog ci micro bi am na koo xam ne moo toog ci machine bi moo tax ba ñeneen nit ñi koy déglu mën koo euh, dégg mhm. donc euh, ñaari pàcc yooyu nga xam ne dañu am solo ci métier bi ñoom la ñuy saytu lépp loo xam ne def nañ ko ndax tegu na ci yoon mhm. parce que liggéey boo gis dafa am ay charte am ay règle yoo xam ne ci nga war a lalu du ne rek lu la neex def donc euh, loolu moo tax kuréel bi yoonal métier bi parce que yenn saay nit ñi dañuy jàdd koñ ci tayeef loolu moom dañ koy nangu mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy jàdd koñ si si seen liggéey parce que xamuñu mm-hmm. ñooñu ñun dañ leen di xamal ñi nga xam ne dañuy tey di def si tayeef mm-hmm. dinañu wax ak ñoom bu ñu woyee si euh, mbir euh, di di def naka su dul noonu euh, am nañ nag kuréel bu nekk si ñun nekk si sama kilifteef ñu koy wax tribunal des pairs. Mhm. tribunal des pairs boobu comme tribunal yi àtte. Mhm. foofu bu fekkee ne def na naka su noonu ba mu euh, ñu wala yóbbu foofu dañ lay àtte. Mhm. bu ko defee buñ la àttee euh, bu fekkee ne jar nañu teg la daan ñu ñu teg la daan. moo waraloon sax si àjjuma ji ñu tas ak tasaru xibaar yi jébbal askan bi liggéey bi nga xam ne. tribunal de Paris bu def na ko ci ndorteelu at bi hmm. léegi. mais inspiration wu euh, CORED naka la ñëwee exactement euh, lan moo leen poussé euh, ngeen teg CORED naka la ñëwee inspiration bi carrément. waa xam nga daanaka ndorteelu atum 2000 ci la CRED moo moom la CORED wuutu. CRED hmm, hmm. mooy conseil pour le respect de l'éthique et la ay ñoom dem ci yàlla Kader Diop. ñoom ñoo ñoom ñoo ko sosoon. Euh, ak ak ñeneen yi nga xam ne suñu doyen lañ ci presse bi. Mhm. ñu béy seen waar si mbir mhm. mi ba 2014 euh, ci la CORED juddu. Mhm. nan la sosoo parce que xam nga euh, li tax a jóg CORED mooy li ñuy wax autorégulation boo jëlee li gën a yomb. CNRA. régulation lay def maanaam boo jëlee fi ñu nekk réew mi. CNRA moo leen ëmb bu fekkee ne dañ jël. maanaam euh, li nga xam ne mooy groupe bi. Mhm. Euh, réew mi. Mhm. bu defee naka su dul noonu CNRA moo war intervenir. Mhm. maintenant bu fekkee ne ñiy liggéey ci biir animateur bokk ci de. waaye képp koo xam ne journaliste nga taskatu xibaar nga képp koo xam ne technicien nga ñun correct boo defee naka su dul noonu ñun ñooy saytu seen li liggéey bi ñuy def saa su ne. bu fekkee ne kenn si ñaar ñooñu jàdd na ko ñun ñooy ñëw euh, fexe ba def li war. bu dee euh, dafa laaj ñu yóbbu ko ci tribunal bi euh, kalaame ko mbala bu dee dañuy euh, jot kalaame ci nit ci askan boo xam ne dafa ne kat taskatu xibaar mbala technicien bi def na ma naka su dul noonu bu ñu jébbalee kalaame bi ñu jox kalaame bi tribunal noonu lay doxee donc autorégulation bi maanaam dañuy ñun suñu biir. xejaluñu mm-hmm. kenn suñu biir. Mm-hmm. ñu ni nen la. mën nañoo entre taskatu xabaar ak. technicien waaw donc ñun ñoo ci kuréel gi am na ay technicien am na ay techniciens en pagaille. ñoom ñëpp képp koo xam ne technicien ci nga ci bokk. parce que mm. parce que loolu la euh, journaliste la ak euh, technicien. Mm. donc ñun ñoon la saytu. donc euh, ñu ne oto xam nga mooy loo xam ne ci biir la nekk. Mm-hmm. donc ñun ci suñu biir. Mm-hmm. xajaluñ ci kenn parce que gëm nañ ne mën nañu régler suñu problème bopp. Mm-hmm. Mm. voilà mais ma ne ci biir CORED est-ce que am na ay techniciens. oui am na ay techniciens parce que boo xoolee CORED. nan lay nan nan la. taxawee. Mhm. mooy assemblée générale la ñuy def ña ñetti at yu nekk. Mhm. fal waaw fal président bi. Mhm. Euh, ci du moins dañuy euh, def assemblée générale bi samp lu ñuy wax directoire. directoire boobu membre yi. yooyu euh, fukk ak ñeent la ñu nekk si si AG bi da ñëw yëkkati loxo donc yëkkati loxo nekk kandidaa la dañuy voté fukk ak ñaar yi nga xam ñoom ñooy ëpp ay xob ñoom la ñuy jël def leen si directoire bi buñ sa noppee directoire boobu mooy tase ci si ci biiram. Mhm. fal li ñuy wax bureau bureau CORED bi. Mhm. bureau boobu ci la président bi di nekk am euh, secrétaire général am euh, chargé de communication am trésorier ak adjoint am mhm. chargé organisation ak adjoint mu nekk sept membre itam directoire bi. bu quatorze membres ñoom ñooy tànn. ñi war a nekk ci tribunal des pairs. tribunal de pairs boobu nañ ci xuus ci kanam. Mhm. fukki tribunal des pairs mi ngi ci biir correct. mu ngi ci biir correct. waaye sama kilifteef la nekk. Mhm. parce que saa yoo saa yoo waree dem ci tribunal si man ngay jaar. Mhm. mën na nekk ci clamé boo xam ne mën nga koy jébbal bu ko defee. Euh, wone firnde bi nga xam ne ah taskatu waaye mbala technicien bi la tooñ na ma te nii la ma tooña nga wone firnde bi bu dee rajo la comme si rajo lañ nekk son bi euh, nga da ñu koy euh, da koy boole si clamé bi. Mhm. bu dee bindukaay bi la da ngay scanner mbala nga photo photocopie affaire bi. boole ah, ko ci plainte bi. Mhm. bu dee euh, télévision la mbala site internet itam noonu lay demee. Mhm. bu dee télévision aussi vidéo lien vidéo bi nga jox ñu ko bu ko defee ñu def li ci war. mais euh, loolu noonu euh, noonu noonu la kuré kuréel yooyu ñoo ñoo ŋànk li nga xam ne mooy mooy karo te kuréel bu ci nekk. Mhm. am na liggéey boo xam ne moom moom lañ la sas rawatina li ñuy wax tribunal des pairs. voilà ngeen euh, kuréel gi di di di di mettre l'accent sur l'éthique et la déontologie. Mhm. peut-être ñi nekk ci métier taskatu xabaar bi xam nañ ko mais ñi nga xamante ne nekkuñ ci métier bi di dégg étique ak déontologie lan nga leen di wax exactement. lan mooy éthique lan mooy déontologie. éthique ku nekk da nga am sa éthique bopp. éthique du ne ñun ñëpp ci penj bi ku nekk na ngay génne sa kër éthique da nga war a am sa éthique bopp cest à mu doon loo xam ne yow ku nite nga mhm. xam fan fan fan ngay teg sa tànk xam li ngay wax mhm. xam nan ngay jëfe mhm. déontologie mooy li li ñun ñëpp li ñu bokk maanaam day day doon ay charte yoo xam ne comme ay constitution indaale naa code de la presse bi nga xam ne moom moo ñu ëmb mën nañ ko boole suñ déontologie Euh, am na lu ñuy wax charte des journalistes du Sénégal bi ñuy tas ak bi. Mm-hmm. Euh, yow yaa ngi fa woon. Mm-hmm. Euh, wasaare woon nañ document boobu. Mm-hmm. charte des journalistes du Sénégal man yàlla may na ma mois de mars ba léegi presque tase nag ak sama équipe bi. si en ligne lañ ko doon def parce que ak ak mbas bi moo tax. donc dañuy ku nekk da ngay toog sa ordinateur. ñu tase kër yi liggéeyukaayu taskatu xibaar techniciens yi si Sénégal yëpp ak même si région yi tase boobu ñu doon tase. Mm. Euh, tax na ma xam ne ci lu bëri li tax ba yenn rëq ñu ngay nemmeeku mooy que ne nit ñi tas ko fi baax techniciens yi demuñu yëri. Mm. déontologie boobu moo bi nekk si suñu suñu texte yooyu mm. mu mel ni charte des journalistes du Sénégal mm-hmm. am ma test ko dafa waaye waxatu ma nag ay techniciens yoo xam ne xamuñu sax ne loolu am na mm-hmm. moo tax euh, ndaje boobu baaxul parce que buñ ndaje boobu buñ koy def charte boobu dañ koy wasaare bu ñu mm-hmm. paree ma envoyé ko ñi nga xam moom lañ ñoon taseel Euh, tasaare la seen biir. Mm-hmm. nit ñi jàng ko xam ne ci mm-hmm. nekk. parce que parce que mm-hmm. parce que balaa nga ne naam ne fa. Euh, te loolu gis naa ne dina soppi lu bëri parce que itam li may ñaan sama naataango tasaare baari technicien yi. Euh, nañuy jël temps. mooy code de la presse bi nga xam ne indaale naa ko te mu mel ni suñu constitution. ak charte bi itam. da loo xam ne dañu war a xam lan moo nekk ci biir boo xamee li nekk ci biir. moom moo ñuy leeralal si ñoon bu mm-hmm. fekkee ne xam nga ko nag. Mm-hmm. Euh, gëm naa ne rëq-rëq yu bëri yu ñuy nemmeeku. dina dina wàññeeku. bu mm-hmm. fekkee ne mënta dañ. voilà euh, loolu maanaam daal mooy règle yi nga xamante ni teg nañ ko bépp taskatu xabaar wala technicien boo xam ne tënku nga si di nga respecté li ñuy wax éthique ak. déontologie euh, correct lan la apporté taskatu xabaar yi. lu bëree bëri parce que boo xoolee biñ ko tàmbalee ba léegi quand même. waxuñu ne rëq-rëq amatul si métier bi. waaye mu ngi mu ngi wàññeeku. Mm-hmm. parce que li ci nekk mooy que ne boo defee naka su dul noonu. Mm-hmm. Euh, ci wàllu liggéey bi loolu nag du ñàkk mais dañuy ñaan yàlla mu néew trop. Mm-hmm. Euh, da di loo xam ne li ma doon junj sànq soit boo tooñee nit mu def clamé indi ñu ko ñu càmbar ko. soit ñun suñ bopp ñooy def li ñuy wax autosaisine ah di xaar nga jébbal ñu clamé. boo defee lu ne cote ne jon ah ñu ne kat. lii kat jaarul mm-hmm. yoon. Mm-hmm. maa ngi lay jox misaal ci wàllu autosaisine. Mm-hmm. benn boo xam ne bokk na si liñ doon euh, waxtaanee ci àjjuma ji bi ñuy wax coré euh, tribunal bi ban liggéey la def si juróom si euh, ndorteelu at xëy nañ benn benn bés déggoon nga lii boobu amoon fukki weer. te def mu gaañu si benn crèche. ba mu amee dañu xëy bés rek gis si yenn kaay yi ñuy xëyee. ak même si yenn télévision yi ñu wone photo xale bi xale bi mhm. ñu ne papu xale bi moo leen jox photo bi mhm. wane photo bi xam nga booy booy wane photo koo xam ne quand euh, mineur la mhm. waxaatuma la nag même ku majeur sax euh, parce aussi ki am bac ki doon defal bac corom bi kooku itam niñ ko def déguisé wu en femme mais biñ photo boobu waruñu woon woone waa ji ak ak ay bëtam da ngay muur bëtam ba ñu bañ a xam moom mooy kan parce que loolu euh, wala nga muur kanam gi waaw droit à bëgg a wax rek droit dafa am bébé itam même bu la papam joxee autorisation amoo droit wane photo bi. Mhm. jaxarañ da ngay muur kanam bi ba ñu bañ a xam moom mooy kan. Mhm. ba ba mbir moom amee ñun CORED xaaruñu kenn jébal ñu kalaam ñun ñoo jël mbir mu saytu ko. Mhm. yóbbu ko si tribunal bi juróom-ñaari yéenekaay la woon euh, ay ay site internet. ay yéenekaay yu ñuy xëyee ak même benn télévision boo xam ne télévision bu mag la. Euh, ñett yi nangu na vraiment juum nañ. bañ ko defee tribunal bi ne ah ay la yoon ku nangoon a juum na. Mhm. vraiment nañ leen jéggal mais ñu ne leen bu ëllëgee bu mu leen dalati. Mhm. ñeent yi nga xam ne dañ doon indi ay lay naan wéy euh, seen papam moo ñu jox donc am nañ droit ñooñu ñu teg daan seen kaw. yéen yéen yéen façon daan ngeen di teg. daan yi avertissement lay commencé. Mhm. c'est-à-dire mooy premier daan bi njëkk dañ lay avertir. boo defee euh, defaat bu fekkee ne garaaw na ñu yéeg blâme bu boo defee def defaat. loo xam ne troisième fois mbala man mën nañ jégal sa troisième fois blâme mais boo defee def defaat man man mën nga def loo xam ne c'est lu grave a grave mm-hmm. bi nga xam ne mooy mujjanteelu daan bi mooy que ne mën nañ dem bi ñun ko correct xam nga euh, fii ñuy wax ak yow tàmbali nañ weeru mars ba léegi. Mm. di joxe li ñuy wax suñ carte d' identité professionnelle. Mm. mooy carte nationale de presse. de presse carte nationale de presse boobu mooy suñ carte identité mooy suñ carte d' identité parce que fooy foo mën a nekk ci àdduna bi ak fii ci réew mi da ko war a yor. Mm. booy dem si manifestation dinañ egg si euh, jamono boo xam ne boo ko yorulee. ñuy dem terrain bi. man doo doo demee doo dugg. si yenn mani si manifestation bu manti ku ko yor mooy journaliste képp koo xam ne yor ko xam ngeen xam leen la reconnaître comme journaliste voilà mm. donc carte nationale de presse boobu beneen daan bi nga xam ne CORED am na ko sañ-sañ bi mooy que mën nañu maanaam dootuñ yéen waa CORED dootu leen attribuer no commission euh, non ñun sax attribuer ñu attribuer ñu carte bi mais quitus bi du ngeen ko joxeet euh, organe boobu par loolu foofu laa jëm en fait en fait conséquence yi nga doon wax euh, ban la ñu am mooy que ne ñetteelu daan bi CORED mën na dem bi ñaan commission bi la joxoon Euh, carte de presse boobu mu nangu ko. Mm. mën na koo nangu si ab diir mbala mu nangu ko def. ba faw mm-hmm. nga xam ne dootoo bokk si ñun. mais laataa ngay am carte boobu. Mm-hmm. c'est euh, sañ-sañ boo xam ne jox nañ ko correct balaa ngay am carte nationale de presse da ngay ñëw si ñun ñu xool yow yaay kan. Euh, ñu joxe benn document bu ñuy naan quitus quitus comme genre casier judiciaire la. Mm-hmm. dañuy xool say jaar-jaar bu fekkee ne vraiment mos nga am laale ak correct ak suñ tribunal bi. te mu bu doon averti bu dee avertissement mën nañ bàyyi mu jàll. Mhm. mais bu dee ay blâme ak yooyu. Mhm. ala yéwén duñ la jox quitus te buñ la joxulee quitus doo mos a am. carte nationale de presse donc xam nga loolu jéego bu rëy la. Mhm. mais li ci euh, liñ ci dolli te yàggul si weer si ginnaaw am na benn am na koppar boo xam ne nguur gi da koy jox di ko jàppale ñi euh, yor seen euh, bërëbu liggéeykaayu taskatu xibaar. comme fii réew mi. kii ko kilifa bi aide à la presse. boobu léegi fond. d'appui et de développement de la presse moo ko wuutu. Mhm. fonds boobu commencé na fonctionner weer a ngi nii donc lañ ci indi lu bees mooy que ne bu la correct daane bu dee avertissement. Mhm. da ñàkk fukki poñ. bu dee blâme nga ñàkk ñaar fukki poñ. Mhm. xam nga loolu lañ lañ ci jublu. nit ñi gën a xoolaat seen taxawee. parce yenn saa dañuy jël dogal nit ñi foog ne ay caaxaan ay caaxaan ah parce que dañuy wax CORED amu fi njëriñ ñi amu seen kuréel amu fi njëriñ mais boo de la presse bi ñu mhm. tënk mhm. dañu ko ci oh, mi ngi ci biir donc ñun ñoo leen may pouvoir yoon moo ñu may doole donc ñiy wax loolu dañu xamul fañ lañ nekk moo tax ma ne dinay baax loolu ñu dem xujëri euh, li nga xam ne moom moo ñu tënk ci wàllu ci wàllu code bi mhm. ak wàllu yeneen texte mais est code bi yéen a koy jël di ko tas taskatu xabaar yi jot si technicien yi def ko sous forme de pdf wala je sais pas par exemple ndaje boobu ñu defoon ak seen groupe bi yow yaa ngi fa woon waaw bi ñu paree man envoyé naa code bi charte bi ak code ak code bi yëpp envoyé naa ko pour nit ñi mm-hmm. Mm-hmm. gën ko loolu sax journaliste war koo xaar mm-hmm. parce que ni ma mel code bi boo ko tey xarala yi dañu dañu dox donc boo boo boo buggee am code de la presse mën nga ko am mais souvent dañuy wax il faut que journaliste yi di nangu journaliste dafay lire lu bëri. Mhm. lu bëree bëri di mhm. gëstu. de loo gis rek bëgg xam lan la. parce que loolu mhm. loolu mooy suñu métier. waxuma ne fu nekk nga ne nga jéem a xam. du ko ko waaw nga jéem a lijjanti du loolu. mais c'est-à-dire da gëstu pour xam. parce que yàlla dafa def ñuy def métier boo xam ne faw nga xam lu bëree bëri. xam fii xam fële. même si bon tey spécialisation dafa am. maanaam ñi nga xam ne sport tàggat yaram moo leen gënal. Mm. ñii euh, cosaan ak aada. Mm. ñii euh, santé ak mm, yooyu wér gu yaram donc loolu loolu spécialisation. mais war na am culture générale taskatu xabaar dafa am solo. Mm-hmm. mais ci li nga doon wax ne comme fonds d'appui euh, à la presse comme ça koppar yi nga xamante ni souvent nguur gi da koy jël jox ko këru presse yi. Mm-hmm. pour jàppale leen nga ne bu fekkente ni correct daf la daan. Mm-hmm. wala da am problème ak correct comme ni nga ko waxee am avertissement am am lu ñuy wàññi ci koppar bi euh, bi nga xamante ni bu fekkee maison de la presse bi doon na am par exemple cinq millions peut-être dina am trois millions wala comment ça va se exactement côté financier naka lay ah, ah, demee wala dootul dootul bénéficier dootoo ko am en fait maanaam ah, dootul am en fait li gën a simple mhm. mooy que ne dañuy wax par exemple ne pour nga am ci fond bi mhm. da ngay dajale juróom fukki yooyu mhm. par exemple code bi dafa wax képp koo xam ne da nga am bërëbu liggéeykaay nekk patron de presse lu mu néew néew néew faw nga jël juróomi nit ñoo xam ne. Mm. da leen di recruter jox leen contrat bu jaar yoon. du mm. contrat wuyaa wuyaa de. Mm-hmm. coti seen cotisation sociale seen IPRES yëpp nga respecté. Mm-hmm. contrat bu bu bu jaar yoon bu jaar yoon waaw. Mm-hmm. c'est-à-dire contrat. bu ñu enregistré fële. voilà ci inspection mu respecté convention bi dafa am convention collective du la presse boo xam ne. ñu koy doxal daaw ba léegi gars ak mbas mi moo taxoon ñu xaw a patron de presse bi nee nañ leen may. mais donc euh, pour nga bénéficier fonds boobu da ngay respecté loolu. Mm. juróomi nit nga jël leen. lu mu néew néew néew. lu mu néew euh, lu mu au moins mm-hmm. mu néew néew foog ñu mot juróom da nga ja seen lépp jaar yoon. loolu par exemple dañuy naan vingt points la su ma juumulee. Mm-hmm. ñu jox la vingt points ou quarante points. Mm-hmm. maintenant après ñu ne la ñu bu ñu paree si loolu am na beneen critère boo xam ne dañuy xool. bu ci nekk dafa am ay poñ yoo xam moom lañ lay jox ba mu doon juróom fukk. Mhm. bu dee juróom fukk yooyu xool nañ ko moo matale ko. moo matale ko après ñu ne a ah, nañ xool ndax correct mos na koo daan. exactement bu ñu xoolee ñu xool ne correct averti na la xam nga bu dee juróom fukk nga am. Mhm. ñu tekki ci euh, fukk. Mhm. amoo ñeent fukk. donc amatoo amatoo juróom fukk yi da war a tax nga mën am si donc. non du du sax dañuy pour nga am cinquante points pour am. bu dee pour am bénéficier wu la war jox mbala vingt millions. Euh, boo boo fekkee ne yow amatoo juróom fukki point waaye ñeent fukk nga am ñàkk sax lépp fu ngay ñàkk doo am maanaam dootoo euh, doo am dix millions doon laal dootoo ko laal voilà parce que loolu li ñu ci jublu nit ñi mm. gën a xoolaat seen taxawaay mm. xam ne presse bi gën a nekk presse bu responsable responsable xam mm. xam seen rôle mm-hmm. ade xam ne duñu métier caaxaan la ñuy def métier la boo xam ne saa soo si defee naka su noonu li nga yàq si àdduna dafay ci si réew mi. dafay mm. dafay jéggi dayoo. Mm. waxatuma nag même si àdduna. donc métier la boo xam ne képp koo xam ne da ci nekk dafa war a nekk nit ku nit. Mm. bañ a foog ne rek da ngay ñëw toog si micro bi lu la neex wax wala lu la neex def. loolu da ngay yor sa sa sa site lu la bind. wala lu la neex bind. waaw borom site yooyu aussi ñu. mais tamit foofu foog ñu ñëw ci correct lan lay def coor. Euh, hmm. parce que ce qui se passe sur site internet yi kenn xamul lan la. exactement mais mais site site yooyu site yooyu. ñun ñoo la ñoo ñoo li ñuy yàq en tout cas moo ëpp li ñuy defar ñoo la gën a xam. Hmm. Euh, loolu. Hmm. Euh, Ndeye Comba te gis na looloo tax bi ñuy càmbaraat code de la presse bi parce que xam nga code de la presse 2010 lañ ko yóbboon assemblée nationale. projet projet bi yóbbu ko pour ñu. ñu voté ko. Mhm. donc 2010 bi 2012 bi doon Abdoulaye di wàcc nguur gi gars bàyyi ko fa. Mhm. parce que dafa amoon li ñuy wax dépénalisation. Mhm. maanaam journaliste bu defee naka su dul noonu kenn du ko topp. ci wàllu yoon kenn ko tëj daal. waaw donc yooyu yoo tax si ay ay député ne ko wote. parce que journaliste yi quand même dañu yoon moo war a tegu seen kaw. en fait comprendre ñu woon ne liñ ci jublu du loolu. waxuñ ne journaliste yoon war a tegu si kawam déedéet. lañ ci jublu woon mooy que ne dañ gëm ne wan nañ mën a dem ba affaire u délit de presse dina dinañ dootul sax amati mhm. mais euh, bi Macky Sall itam def na ba 2017 lañ koy doog a voté mais gaa li ñu war a rafetlu mooy que ne léegi bi ñu ko voté dindi nañ dépénalisation bi wala dindi wuñ ko wala dañ ko changé non non dindi nañ ko def ci mhm. ay peine privative yu xaw a diis sax mhm. ak ay peine pécuniaire parce que ni mu mel si daan ci wàllu koppar yi ñu ci def dafa diis. te mhm. loolu wax nañ ko. Mhm. loolu par exemple euh, bu ñu amee occasion di càmbara parce que texte texte la rek. mën nañ ko mhm. xoolaat mën nañ ko xoolaat. Euh, xoolaat ko am na disposition yoo xam ne war nañ ko mën a xoolaat euh, dëppale ko jamono sinon du du baax. donc si si si wàllu bi ñu koy càmbaraat nag. parce que amoon na instant yoo xam ne dañu dañu ñu delloo texte bi ne xoolaat leen ko. yàlla def site internet ci la commencé am doole. te moo ne ko dañu fàtte woon site que boobu site internet am amul noonu doole mais yàlla def biñ ñu delluwaatee taxi bi ñu profitoo ci ay yoon kat mm. nañu fexe ba boole site modification boole site ñu ñu boole site yi mm-hmm. site yi liñ ci def par exemple tey boo créer sa site internet mm-hmm. am nga ñu bari ñoo xam ne dañ créer site du ñu sax ay journaliste xam nañ xam nañ exactement donc ñooñu faw terewuñu nit Euh, def créer groupe de presse parce que groupe bi. Mhm. boo jëlee mbañik bi nga xam ne monsieur Diop moom moo ko créé du journaliste. Mhm. mais man nga mën nga boo fekkee ne am nga sa koppar créer sa journal. mais loolu loolu sewuñ ko mais na nga def euh, ñu lay liggéey. si ay conditions nekk ay professionnel nga leen di fay li war. Mhm. ci wàllu koom. looloo tax ñu ne site yi képp koo xam ne da nga am site te loolu code moo ko. lu mu néew néew néew ñetti nit di ko am. war nañ ko ñetti journaliste du ñetti ñoo xam ne euh, kenn xamul fan lañ jóge de. Mm-hmm. ki ki jiite site bi euh, waxuma patron patron patron bi man na bañ a nekk journaliste mais ki doxal site bi. Mm-hmm. dañu koo xam ne lu mu néew néew néew dina am fukki at ci métier mm-hmm. boo nekkee boo defee fukki at ci métier. nekkatoo ci cuune. bi mbala euh, directeur de publication site bi fukki at. dix ans d' expérience. war na ko am war na ko am. ki nga mu am ñetteelu journage boo xam ne da koy recru dañ koy def day feeñee site bi xam ci jublu mooy que ne. Mhm. site yi gën a professionnalisé parce que mhm. gis nañ ne euh, am na ñoo xam ne ñu ngi jéem mais du ñu ay professionnel. Mhm. moo tax ñuy def naka su noonu. mais site yi dafa am solo manu ñu dem euh, mënuñu leen a sànni sa sa sa bu mais foog ñu réguler leen foog ñu réguler leen. ci lañ nekk. ñu ngi leen di réguler. Euh, te li ci am mooy CNRA mënu leen a réguler. fii mu nekk par exemple correct am nañu sañ-sañ si cité. CNRA mënu leen a réglé non non parce que CNRA audiovisuel lay lay réglé. Mhm. c'est-à-dire rajo yi ak télévision. kon kan moo mën a dara cité. cité ah, kii fii ñu toll tey ñun par exemple correct mhm. mën nañ ci ñoom dara. Mhm. ba ñu mën a yem. maanaam ci wàllu. parce que normalement am na kuréel boo xam ne moo war a wuutu CNRA. Mhm. bu fekkee ne ñu ko ñu ngi doon jund ARCA la war a tudd. Mhm. bu doon ARCA boobu ñëw na mën na dem ba mën a saytu site si wàllu régulation. Mhm. mais ñun par exemple si wàllu autorégulation ñun suñu biir ñu ngi def lu ñu man parce que ci wàllu tribunal bi nga xam ne ñoom lañu yenn saa yi ay clamé yu bëri mbala autosaisine yu ñuy def. sites yu bëri boo xoolee yi si ëpp maanaam presque quarante pour cent yi mhm. téeméer boo jël mhm. ñeent fukk ba juróom fukk yëpp ay site ay site la si mhm. seen liggéey niñ koy defee donc mu doon loo xam ne day wane ne laaj na liggéey bu bëri si wàllu moo tax code bi nga xam ne ñu ngi koy jëmal euh, fii ba ndortelu fii ba njeexitalu at bi normalement bu dee yàlla euh, may ñu fekk ko normalement site bu ci nekk bépp si bu bu bu exister. Mhm. faw nga sàmmanteeg ñett yooyu ma eh, mhm. loolu ma. conditions yi ñu teg pour ñu mën la reconnaître voilà bu fekkee ne sàmmante ak moom duñ la mën a reconnaître te mën nañu la considérer nag. site boo xam ne. Mhm. site euh, euh, d' information. te boobaa doo mën a am carte professionnelle doo mën a am carte professionnelle mën a am si euh, fond boobu moo xam ne moom la. ndimbal bi di di joxe. Euh, léegi coox parce que loolu la ñuy mm. ràññaat la aussi ne am na ay site d' am na ñuy wax ay site people maanaam ñoo xam ne mm-hmm. lu leen neex la ñuy def seen seen site mm-hmm. boo defee xëy xëy rek bind coor naa nga affiché voilà di bind loo xam ne rek pour mm-hmm. nit ñi mën a xool seen site am na ñoo xam ne nag xibaar moo leen tax a jóg ñooñu faw ñu sàmmoon teg li ñuy euh, wasaare lan moo war a doon tax taxawaay taskatu hmm. xibaar. souvent problème tamit droit à l'image bi ñu taxaw si euh, taskatu xabaar wala borom site bi nga xamante ni dégg na ne telle personne euh, décédé na amul image am dafay dem Google bindu tur bi ñu génneel ko ay photo du xam sax kan la ci mu daal di jël benn photo rek illustré ko ne telle personne décédé na chaque jour nga gis ne site internet yi mu ñu ngi koy def wala taskatu xabaar yi ñu ngi koy def correct lan lay def par rapport. ak loolu parce que dafa nekk lu grave parfois ñu tàggee koo xamante ni sax faatuwul parce que dañu dugg Google rek def benn tour mu génnee leen ay photo ñu jël si bu leen neex pour illustrer seen texte. waaw loo loolu xam nga euh, mooy li ma lay delloo mooy manque de professionnalisme ma doon wax sànq. Mhm. parce que yow bu dee da ngay jiite site li may wax toujours euh, kuy def euh, tasum xibaar li may ñi nga xam ne maa ngi leen ciy tàggat dem leen di wax ne. Mhm. mujjee joxe xibaar te mu wër. moo gën moo gën fuuf bu dee da nga toog ñeenti waxtu sa sa ñi nga xam ne mooy say concurrent say jamaale njëkk la koo joxe te ñu juum te yow nga mujjee koo joxe après euh, ñeenti waxtu te mu wër moo gën parce que li musiba euh, si journaliste mooy nga joxe xibaar ba pare. den si mm-hmm. naan damaa juum. Mm-hmm. te loolu li koy indi mooy gaawantu. cest à yow li nga wax. Mm-hmm. Google nga tapé. def mais au moins. verification bu fekkee ne yow am nga photo bi eh, ki nga xam ne moom moo gaañu bu fekkee ne dafa gaañu. Mhm. am na ay mbokk bu fekkee ne au moins mën nga am contact mbala koo xam ne xam na ko parce que dëkk bi ñun ñëpp ay mbokk lañ. Mhm. foofu la ñuy wax traitement de l' information. nga mhm. jël nga saytu info xibaar bi. xool photo bi bu fekkee ne jar na koo xam ne mbala sax koo xam ne jegewul famille bi mais koo xam ne gëm nga ne peut-être moo la ëpp xamoon si si ki nga xam ne moom moo moo génn àdduna mm-hmm. mais nga ne ko ah envoyé ko photo bi ne ma xool ma ndax moom la mm-hmm. bu ko defee bu xoolee na bu bu xoolee dina xam la mm-hmm. na la wax ne moom la wala du moom mën na la aider sax bi envoyé la ko mais peine boobu la nit ñi duñu am c'est-à-dire njëkkante bi moom gisuma dara lu ko fi parce que boo njëkkante ba pare dëkk si juum loolu baaxul sax si journal da ngay dem ba kenn dootu la wóolootu mhm. te loolu la ñuy woo mhm. jël temps information tey dañu am xarala yu bees maanaam euh, kii jël jël euh, segg dem jëli xibaar yóbbu ko ci penc bi loolu ñëpp a ko man. mépp mhm. koo xam ne tey yàlla may na si xarala yu bees jarul sax ngay nekk journaliste pour man loolu. Mm-hmm. parce que bëggoon naa la ko laaj sax ma ne léegi ñëpp ay journalistes. ak réseaux sociaux yi voilà mais fi ñu wuute fi ñu wuute. mooy dañu jàng métier bi. Mm-hmm. métier bi dafa am loo xam ne. moom lañu wax ci ngay tënku ci wàllu traitement boo jotee xibaar nan nga koy saytoo segg ko laataa nga ko yóbbu ci benn parce que ki nga xam ne mooy commerçant bi nekk Sandaga mbala ki nekk fii HLM. mbala menuisier bi nekk fii ci quartier euh, Sodida mhm. kooku bu fekkee ne yoon appareil am gis loo xam ne xew na mën na filmer mhm. yóbbu ko noonu mais yow bu dee journaliste boo boo filmer xam nga ne du li nga filmer yëpp moom nga yóbbu si benn dafa am war nga dem segg ko war nga xam waaw segg ko def euh, montage bi mhm. parce que am na yoo xam ne boo ko filmer di nga xam ne kat lii waruma ko yóbbu si benn ala kulli mais ki nga xam ne xamul day day day faw ne voilà mm-hmm. foofu nag la ñu di war di wonee suñ bopp waaye suñ métier bi gaa tey xarala yu bees tax na bu nekk ku nekk ma ne ne journaliste nga mais ñëpp du ñu ay journaliste mm-hmm. loolu amul mm-hmm. journaliste dañ koy jàng comme métier yëpp te dafa am charte yoo xam ne ñoom ñoo ñu tënk ñu war cee tënku euh, bu ko defee nit ñi euh, dellu du ñu ñëw parce que dañu am solo ci réew. voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau euh, dalal Mamadou Thior nekk président bu euh, CORED Mamadou Thior am na sànq sax yaa ngi koy wax carte nationale de presse boo xamante ni moom la ñu teg c'est peut-être c'est pour assainir la presse c'est pour tamit ku jóg ne taskatu xabaar la ngeen am ay normes yoo xam même ngeen tënk mais carte nationale de presse boobu. kan moo ko mën a am ak kan moo ko mënul am ak ku ko bëgg am naka ngay def. waaw euh, carte de presse boobu mooy comme li ma wax suñ carte d'identité. Mhm. ñu ñëpp euh, te euh, li indi woon bi coog bi. Mhm. mooy que ne li ma doon wax sànq euh, suñ code de la presse ni mu yàggee assemblée nationale deux mille dix ba deux ñu koy doog a voté si diggante boobu presque kër liggéeykaay bu nekk. Mhm. créer sa carte de presse. maanaam yéen waa groupe bi defaral leen carte. Mhm. ñun waa RTS ñu defal ñu carte boo demee waa euh, Futurs Médias ñu defal leen carte te loolu day indi jaxasoo. Mhm. mais loolu ko indi woon mooy que ne amatul ñu woon loi bu ñu tënk. Mhm. mais carte de presse bi def mos na mos na fee nekk parce que commission bi existé woon na. ak ñun amoon nañ ancienne carte yeeg yooyu moo tax bi ñu wootee loi bi ñu ne nañ delloo soit carte nationale de presse parce que loolu mooy tax ñu xam kan mooy boobu ma la doon wax parce que deux mille ba deux mille vingt sa laa mën a wax parce que deux mille vingt la ñu commencé jëmal li nga xam ne mooy kii bi code de la presse bi njiitu mi xaatime euh, décret yi nga xam ne ñoom ñoo war a euh, tax ñu jëmal ko. Mhm. Euh, moo tax ni mu mel pour nga am carte bi ñaari bunt moo ci am. Mhm. soit da ngay dem jàngi si l'école boo xam ne affaire tasum xibaar lañ fay jàngale. Mhm. pour taskatu xibaar yi journaliste yi CESTI ci la bokk si misaal. bi nekk université ISIC ci la bokk EGICOM ISEC am na école yoo xam ne vraiment nguur gi. reconnaître na leen te école voilà mhm. parce que am na école yoo xam ne dañu naan dañuy jàngal tasum xibaar mais boo xoolee lañ fay jàngale. Mhm. ne la wump. Mhm. parce que sori na lool ak li ñuy xaar ci tasum xibaar. mooy école privée te tamit su ko reconnaître. su duñ ko accepter. am na ci itam. nañuy bàyyi xel ci lan nañuy jàngale ci ci école yoo nga xam ne mm-hmm. école da war nañ leen reconnaître yi nga am na yoo xam ne moom amul benn problème comme yu ma la limal sànq parce que mm-hmm. xool nañ ne quand même euh, li ñu fay jàngale méngoo nag li ñuy xaar ci taskatu xibaar mm-hmm. mais ñi des ñu ngi xool au prorata itam dañu war a fexe ba école yooyu Euh, école boo xam ne war a état bi reconnaître war reconnaître la reconnaître gu la te war la reconnaître ñu xool lan lañ fay jàngale bu mm. méngoo mm. bu baaxee ñu ne état bi ah ay lay wén kii mën nañ ko boole wala mën nañ ko si boole si liste bi déjà donc loolu la muy technicien bi aussi noonu la da ngay dem ci école boo xam ne. technicien yi tamit faaw ñu génnee ci école de formation reconnue par l'État parce que loolu lañ ci jublu. Mm-hmm. mooy que ne vraiment ñi nekk ci métier bi nekk ñoo xam ne dem euh, nañ ay ndongo daara lañ dem nañ jàngi. ba mokkal seen i métier parce que souvent dañuy naan taxaw bi baax fàtte technicien yi. ci lañ mm-hmm. bokk. Mm-hmm. da nekk ingénieur du son parce que si rajo lañ nekk. comme mm-hmm. technicien bi nekk si beneen wàll bi. mbala nga nekk caméraman mbala nga nekk preneur de son euh, comme ingénieur de son bi ma wax loolu ak yeneen métier monteur infographiste parce que dafa am. fu ñu tàggateloo yëpp. boobu mooy buntu bu njëkk bi bu njëkk boo ko amee boo nga am diplôme bi boo xam ne si école boo xam ne nguur gi dafa reconnaître boo ñëwee rek. amul benn problème. Mhm. dañ lay jox sa carte nationale de presse. bu ñu mhm. vérifier docu yeneen documents yëpp. bu même bu fekkee da nga yor diplôme bi nag te nekkoo ci organe de presse. non boo boo nekkee boo yoree diplôme bi faw nga nekk ci loo xam ne dafa jege. Mhm. affaire presse communication waaw pour ñu jox la carte. parce bu dee bu dee da nga da nga nekk journaliste dem defi leneen duñ la jox carte. c'est pas pour rien d'ailleurs ci documents yi ñuy laaj document pour booy national de presse am na lu ñuy wax engagement. Mhm. engagement bi mooy que ne dañ ciy bind ne man nay ko moom engagé wu naa dogu naa ne saa yu amee lu soppeeku sama carrière. Mhm. ma informe commission bi bu fekkee ne yàlla def na nekkatuma journaliste ma delloo carte bi. Mhm. nga signé. xam nga boobu boo signé engagé nga sa bopp. donc loolu lañ ci jublu mooy que ne koo xam ne yàlla def na. c'est pas mën nañ mën a nekk ay tasu xibaar ba suñu. Mm. ngir dund. Mm. mën nga defi leneen. leneen mais da nga war a dem. delloo carte bi parce que da mm. engagement bi da koy signé. te loo loo loo engagé ba ñëw ko nag yoon yoon la de. boo ko war a respecté voilà donc loolu lañ ci jublu. mais képp koo xam ne yaa ngi si laale loo xam ne presse ak communication la amul problème même boo nekkul si ab rajo télévision presse écrite di site en ligne mën nga nekk université. bala nga nekk si ministère yor communication bala beneen structure yor communication dañ lay jox. Mhm. Euh, li nga xam ne mooy sa carte nationale de presse. Mhm. donc loolu mooy premier bunt bi deuxième bunt bi pour am carte bi dañu wax parce que suñu bi daf quand ñun euh, tëjuwuñu. Mhm. dañu ubbeeku. parce que xam nañu am na ñeneen ñoo xam mën nañoo ñëw si si ñun ñu yaatal leen. Mm, parce que dañu xereñ ñu ne. bu fekkee ne am nga licence mm-hmm. licence mooy maanaam nga dem université ba def fa ñetti at mm-hmm. am licence licence boobu diplôme mooy bac plus trois bu fekkee ne am nga licence bu manti nekk dañ lay may foog nga dem def ñaari at par exemple nga ñëw fii rédaction Rewmi FM mm-hmm. def fi ñaari at si stage maanaam am nga licence université ci beneen domaine boo xam du journalisme de communication mën nga ñëw liñ lay sas rek mooy nga dem def ñaari at ci ab rédaction maanaam euh, stage boo xam ne ñaari at lay nekk. Mm-hmm. après boo paree ñaari at yooyu lu bees li ñu indi mooy dañuy samp li ñuy wax validation des acquis de l'expérience. Mm-hmm. ñaari at yooyu nga tàggatu dañ koy càmbar xool ba xam ndax ah est-ce que la nga fa jàng mot na wala motul est-ce que vraiment li ñuy xaar ci taskatu xibaar technicien matale nga ko bu ko defee li ñuy def mooy que ne dafa am commission boo xam ne ay nit ñu xereñ dañ lay woo nga ñëw toog ñu jàkkaarloo yow di la laaj. Mm-hmm. si wàllu suñu métier. Mm-hmm. bu fekkee ne euh, liñ lay laaj vraiment tontu nga ci si anam yu yu leer. mën nañ la jox ñu jox la carte. Mm-hmm. donc loolu loolu mooy ñaari muntu yi nga xam ne. maye nañ ko pour nga am carte nationale de presse. mais ñi nga xamante ni yàgg nañ ci biir presse bi te biñ ciy dugg amaguñ amuñu woon diplôme ñu dugg si yàgg si. ñooñu tamit dinañ yor euh, carte am euh, carte non loolu mooy mesure transitoire xam nga loi bu loi bu boo gis bu ñëwee. Mhm. lim fi fekk day yemawut euh, nu mu ko saafara. Mhm. ab diir fii ba deux mille vingt sept. Mhm. juróom benn at moo ci des fii ba deux mille vingt sept ñooñu nga wax noonu dañ leen a wax. bu fekkee ne def nga fukki at ci métier bi. Mhm. fekkee ne amoo diplôme amoo lii ñu la wax licence ak loolu. Mhm. bu fekkee ne def nga fukki at. ci métier bi ci métier koy wone d' abord. Mhm. ne da nga koy wax nii rek ñu ne comme la de da ngay wane sa jaar-jaar. loo xam ne. mais lan moo koy attesté non parce que fi nga jaar. bu fekkee ne jaar naa fi jaar naa fi bind ko bind ko ak wane ko si wàllu. këyit ba ñu ba mu ba ñu ba mu firnde bi wër. Mhm. boobu si validation ngay def. ay attestation stage. Voilà. travail ainsi de suite. Mhm. parce que yooyu foo jaar normalement bu dee ay stage dañ la koy defal yooyu yëpp nga indi ko bu ko ñoom ñu xool bu fekkee ne wër na li ñu defal kii am licence bi lañ lay defal validation acquis de l'expérience. ñu mhm. woo la nga toog ñu lay laaj bu fekkee ne vraiment mën nga tontu si laaj yi aussi euh, amul benn problème. ñu jox la carte mais loolu. fii ba deux mille vingt sept bu deux mille vingt sept weesoo. incha allah mm. loolu nga génn ci école am foog nga am licence. école journalisme bala nga am licence loolu lu ñuy wax mooy mesure transitoire. Mm-hmm. loi boo gis day am mesure transitoire mm-hmm. maanaam li nga fekk nga xool noo koy régler ab diir. d'ici deux mille vingt sept voilà ci la kii boobu di daal di am ah. euh, léegi mu am beneen kuréel muy maison de la presse wala këru presse bi mhm. maison de la presse dañ koy dégg nii ñan ban njëriñ la amal presse bi <laughs> ñan ñooy bénéficier wu euh, kër gi taaru na yaatu na mais am na ñu fa loger ñeneen ñu loger wuñ leen maison de la presse dans les normes mu war a demee suñu kër ñun ñëpp et vraiment euh, dafa jot ñu créer ay activités yoo xam ne programme d' activité annuel. Mm parce que maison de la presse am na ay Mali yi suñu mbokk yi ñu dendal euh, boo demee euh, dëkk yu bëri yoo xam ne war nañu am nañ maison de la presse. Mhm. li ñu ci jublu mooy que ne. Mhm. kër journaliste lay nekk ak. Mhm. technicien yi. c' est pas pour rien boo fa demee am na amphithéâtre am na ay salles yoo xam ne par exemple yow Ndeye boo demee reportage. ville xam nga fii def xaw na sori sori la. Euh, nga war a dugg si journal bi. Mhm. mën nga dem maison de la presse def sa montage. def yëpp euh, envoyé ko bala def foofu à partir de la ba direct. Mhm. yooyu yëpp possibilité yoo xam ne may nañ est loolu yëpp am na fa. Euh, jumtukaay yooyu am na jumtuwaay yooyu dafa war a mot mot mhm. mot. mot parce que ki ko jiite. Euh, muy baare yàgg na fa lool. taskatu xabaar la depuis deux mille dix. loolu di ci war a taxaw. lii xaw a yéexal bi mooy que conseil d'administration bi. dafa yéex a taxaw. parce que mm. daanaka. mais mais mais li ma la bëgg a laaj coor. Mm. mooy euh, maison de la presse. Mm. biñ koy taxawal. c'était pourquoi exactement. parce que nee naa la kër gi yanju na yanju na. non maison yaatu na mais maison de la presse yéen Ablaye Wade la woon. waaw pour pour lan exactement. wax dëgg yàlla yéeneem la woon. waaw dafa xooloon ndem si yàlla Alpha bi jeete woon Simpix boo xoolee maison de la presse. titre foncier bi tour Synpics la nekk mooy suñu syndicat bi. ñu mm-hmm. ëmb ñun journaliste yi. Mm-hmm. Synpics. Mm-hmm. da ko da ko da ko yéenoon journaliste yi euh, bâtiment bu nu mel parce que itam comme xam na xam na voyagé na xam na itam ne ñun itam xam nañ ne suñ yeneen réew ay Mali bu ñu ko mën am ñun war nañ ko mën am parce que si wàllu démocratie si wàllu avancée de la presse ñooñu ëppalewuñ ñu dara donc loolu la ci jubloon may ñu bâtiment boo xam ne. ci la journaliste yëpp war di tase. Mm-hmm. di sottante xalaat parce que loolu lañ ci jublu. Mm-hmm. di di xel di xelli euh, parce que loolu mooy mooy mooy boo itam boo xoolee sax maison de la euh, boo boo dee tase waa jóge bitim réew mbala jóge ci biir réew mi. Mm-hmm. nga ñëw Ndakaaru am na boo parce que huit étages la je pense cinquième ak sixième étage genre hôtel la. ay chambre yoo xam ne boo jógee fu sori war a fanaan fii. man nga dem foofu. gratuitement wala dina am loo joxe am loo joxe. mais du cher. warta cher. Mhm. bu dee bu dee taskatu te foofu la carte de presse bi di amee solo boo ko wonee mhm. dañ la war a wàññi. Mhm. donc nga mën a toog foofu diir bi ngay toog def li ngay def euh, bu ñu amee ndaje boo xam ne taskatu xibaar yu jógee biir réew mi euh, war a ñëw fi Ndakaaru mbala jógee bitim réew. bu ñu ñëwee ñu dalal leen loolu loolu yëpp. dañ ko prévoir te mu nga mu nga fa. installation yi am na yoo xam ne def nañ am na yoo xam ne des na mais. normalement euh, vraiment at bi ñu jëm war nañu am programme parce que loolu loolu. Hmm. moo manqué. Hmm. mais comme conseil d' administration bi euh, mu ngi commencé dox. Hmm. war nañu fexe be programme boo xam ne activité ñoo xam ne. activité boo xam dafa laal presse non deux mille vingt deux programme annuel. par exemple dañu bu euh, bu ndorteelu at deux mille vingt deux maison de la presse dafa war a wone comme ni ko yeneen maison de la presse si yeneen réew yi dafa def programme d' activité par exemple ñu ne janvier lii la ñuy def comme activité février lii mars lii. taskatu xibaar yëpp xam ko. Mm-hmm. bu ko defee nit ñi en fonction de programme bi lu intéressé nit di xam ne ah li janvier lii mooy am bu ko defee day day day day. Euh, fonctionnel fonctionnel. taskatu xabaar yëpp gis seen bopp waaw gis seen bopp euh, di fa mën di di di daje voilà coor fan yi nga gis ni am na coowal euh, kilifa mooy rapport boobu mouvement Y'en a marre am buy circuler peut-être question bi ma lay laaj sax du affaire Y'en a wala kilifa li mu def. Hmm. mais leeral mi nga xamante ni jël na vidéo bi diffuser ko est-ce que ñoom li ñu def c'est professionnel oui ou non le fait que koo xam peut-être bëgg na rek. régler un compte personnel. non jël vidéo bi jox ko waar leeral ñu diffuse ko. est-ce non, que non loolu si Corée wax leeral. Mm. Euh, dañu lajj foofu. Mm-hmm. te doo gulet. Mm-hmm. Euh, temps yële. <laughs> Adji Sarr euh, temps mooy Adji Sarr yeneen yeneen yeneen actualité. Mm-hmm. yu temps gis nga ñun yenn saa yi ñuy génne communiqué correct bu ñu gisee. loo xam ne jaaru yoon ñu génne communiqué. wax nit ah moytu leen. lii kat temps yii génn nañ communiqué wax leen ko. Mm-hmm. Euh, ci wàllu euh, fële li xewoon Mbour. Mm-hmm. te ñu ñu ne par exemple euh, doomu Cheikh Yérim moom la ñu njort ne parce que loolu aussi il faut que il faut mm-hmm. ñuy def ndànk. gis nga képp koo xam ne àtteeguñ la. même bu dee dañ la jàpp si loxo si foofu tant que àtteeguñ la. da naan njort nañ. présumé. te loolu du ñu def sax précaution am dañuy naan kii par exemple waayu bi ñu ne moom moo def bu dee sax moom moo def tant que juge bi waxul ne moom moo def kenn amul droit ne moom moo def dañu naan présumé donc euh, présumé viol bi amoon wala l'accusé voilà présumé viol bi amoon mm-hmm. buur par exemple affaire photo boobu ñu noo leeral dafa wone photo xale bu jigéen te xale bu jigéen bi fukki at ak juróom-benn leeram moo ne fukki at ak juróom-benn la am xam kooku mineur la mm-hmm. mënoo wone photo am mun a jax reñ ci mm-hmm. koo xam ne da dañu njort ne dañu egg ci kaw biñ génnee suñ communiqué amul lu ñu lu ñu lu ñu yokkul. mais mm. xam nga loolu ñun. Euh, duñu mm. ko fulla ak fayda lajj nañ foofu. lajj nañ foofu. affaire Adji Sarr euh, lajj nañ lajj nañ. Mm. ari il faut ñuy ñoom ak ñeneen. affaire kilifa bi tamit même chose. Euh, amuñu woon droit diffuser ko amuñu que. Mm-hmm. am na CDP loo xam ne. Mm-hmm. kilifa. Mm-hmm. bu fa bu fa porter plainte dina am dina kenn du filmer nit te waxu ko ne dem lay filmer. rawatina ñun taskatu xibaar bu taskatu xibaar ak keneen moo ci yem cest mhm. à nit ki boo koy filmer da nga koy naan damay film mhm. bu dee par exemple télévision nga nekk ngay def caméra cachée da koy bind na caméra caméra cachée la et da ngay li tax nga def caméra cachée bu dee loo xam ne mënoo wone sa caméra parce que mhm. boo ko woon wonee te information dafa am solo si nit ñi te boo ko wonee ñu faat ñu faat sa bakkan loolu mën nañ ko mën nañ ko nangu mais par exemple wone parce que bon am na loo jublu ci mbir mi ci wane ko mbala euh, li nga xam ne mooy tatuwaal li war moytu mooy di xeexal keneen. Mm-hmm. allez ñun ay ay voilà ñu lay utiliser kon comme arme pour euh, dal ci keneen keneen koo xam ne nekk ci ginnaaw parce que dafa am ay koppar. Mm-hmm. di la utiliser pour def loolu loo xam ne naka su dul noonu. te loolu dañuy wax ne ñu delloo si waat seen xel dara jaru fi. est-ce que kon leeral yéen ñu envoyé ay ay ay ay mise en demeure. ay blâme ainsi de suite loolu loolu loolu ñu duñ duñ ci bu bu ko jaree dinañ ko def. Mm. bon mais mais lu ngeen di benn sutura parce ah. que bi ñuy def euh, tribunal. bi ñuy mm. wax lañ lañ liggéey si àjjuma ji. Mm-hmm. am na ñetti mbir yoo xam ne. Euh, fi mu nekk tribunal bi. Mm-hmm. mu ngi koy càmbar. Mm-hmm. am na ñaari mbir yi wa waa leeral ci waa leeral la jëm. donc euh, laalewul ak kilifa beneen affaire la yoo xam ne. dañu gëm ne nañ ko doxalee du li gën. Mm-hmm. tribunal mu ngi koy càmbar dina xool ba xam ndax est ce que loolu ñun waa Coroly loolu wax dëgg la wala dëgg ñoom itam bu mbir mi amee dañ leen di bind. ne mm-hmm. ah lii kat moom lañ kii yéen indi leen seen lay bu ñu indee seen lay bu ko def ñu jox ko tribunal tribunal booy xool na xam ndax mbir mi Euh, dëgg la wala du dëgg après jël ci jël ci dogal donc boobu ñu ngi def suñu liggéey. Mm. moo suñu cee jóge te duñ ci yox yoxi temps bi jeex na juste une minute ñu tàggatoo euh, bëggoon nañ ko aborder sax muy point Covid 19 bi actuellement gis nga ni coor y a beaucoup de morts ban jàngat nga ci am juste une deux minutes lan moo ñu mën a génne euh, ci actuellement situation bi ñuy dund y a beaucoup de morts. Covid xam nga nee nañ vague bi. je mm. pense que deux premières ñu bëri boo doon waxtaan ak ñoom ñu ne ah affaire bi mm. daal caaxal la. Mm-hmm. parce que doo doo gis ko am Covid doo dégg ko am Covid. mais bi bi yoon. Mm-hmm. ca dëgg dëgg dëgg boo xam boo gisulee itam dégg ma mm-hmm. koo xam ne jege naa ñu ne génn si mbala jot na si mbir mi. donc loolu day day soppi. parce que nit nit ku ñuul dafa ragal. te ci wàllu woowu itam xam naa ne gëm naa tey li tax nit ñi di di daw di ñàkku ji parce que dañu xam nañ ne mbir mi fi mu toll nii. ah bopp sa bopp sa bopp la de. parce que ñàkk yi biñ biñ njëkkee ñëw gars yi dañ doon na ah du ma ñàkku ji mais ñu bëri ñu waxoon du ma ñàkku dem nañ ñàkku ji donc tey xam nañ ne ku nekk yaay euh, jël sa responsabilité bopp. Mm-hmm. déjà responsable individuelle. voilà parce que li ci nekk mooy que ne euh, boo fagawulee sa bopp feebar bi da loo xam du tàggoo et fu fu fu nekk mën na mën nga ko faa jële xam nga loolu tax ba Covid Covid grave parce man nga sax di moytu. Mhm. ba faaw mu mu mu mu mu dal sa kaw. Mhm. te bu dalee sa kaw si yenn euh, condition yi nga xam ne mooy yi nga xam ne am na yenn feebar yi koy yi koy garaawal. Mhm. boo moytu musiba am. moo tax ñuy ñaax nit ñi ñu gën a farlu takk masque yi bu ne wuy dafa tàng masque mënuma koo takk. bu bu dee foo xam ne ci biti la foo xam ne sorante ngeen man nga simi sa masque. Euh, parce que bu bu ngeen dandante ay un mètre deux mètres. Mm-hmm. mën nga bu dee ci biti parce que itam max parce que bi gaa mënoo koo takk. tout le temps euh, tout le temps. Mm-hmm. mais foo nekkee foo nekkee fu tëju. xam ne nit ñi bari nañ nga nekk foo xam ne tëju na parce que loolu aussi day tax feebar di law takkal sa masque. naa foo génnee boo xam ne am na ngelaw te bëriwul bëriwul nit ngeen sorante nga wàcc sa masque nooy waat tuuti parce que loolu de il faut ñu comprendre nit ñi. Mm. parce que yenn saa yi takk masque yi ci ñenn ñi nooy ba xaw mm. mais fépp foo xam ne euh, njort nga ne fii kat wóorul takkal sa masque. Mm. maanaam daal ku nekk jël say responsabilité loolu rek parce que parce ñu wax ne wuy nguur gi moo war a def moo war a def li parce que boo boo feebaree feebar bi itam yow yi ay. boo moytuwee yoo yoo yoo yaay loru balaa ngay egg. hôpital donc euh, faw ñu ñu ñu moytu yooyu. coor ma bàyyi la nga tàggoog auditeurs yi temps bi jeex na tàkk. waa xanaa gërëm la rek. Euh, mm. dégg ko am am mbégte ñëw. Mm. Euh, vraiment waxtaan bi nekk waxtaanu samedi waxtaan bu neex. may yaakaar nag lépp lu ñu ci wax am na am na njëriñ si ñu ñu doon déglu bu fekkee ne am na rëq-rëq ngeen xam ne nit moo moomatul. Euh, rek di di rafetlu liggéey bi nga xam ne groupe bi mu ngi koy def parce que itam tool bi dafa yaatu ku nekk day mm-hmm. bay wàllam si tool bi mm-hmm. euh, di gën a ñaax taskatu xibaar yi ñu gën a xam seen cër parce que taskatu xibaar dafa am solo ci réew dama koy wax toujours euh, ñetteelu njiitu Amérique mu ngi tuddoon Thomas Jefferson moo jiite woon Amérique 1801 ba 1809 dañ ko waxoon bu waroon a tànn ci réew moo xam ne am na gouvernement ak réew bu am taskatu xibaar moom mu ne réew bu am taskatu xibaar moo ko gën réew bu am gouvernement xam nga loolu mooy wane cër bi hmm. nga xam ne ñun am nañ ko waaye waxuma ne bu nit ñi xëyee amuñu xibaar duñu du ñu nekk mais gëm naa ne ñu bari bu ñu bu ñu xëyoon tey hmm. ñu noppi ñun ñëpp hmm. dëkk bi dina am lu fi yëngu donc loolu di wone liggéey bi nga xam ne am na solo ñu koy def mais liggéey boobu dafa am taxawaay boo xam ne moo war a nekk suñu taxawaay ñu bañ koo caaxaane foog ne journaliste euh, euh, ku nekk bu ñëwee war na laa mën a fëkk parce que dañ nemmeeku lu bees loo xam ne mu ngi law journaliste da ngay nekk ci antenne bi di woyaan te mm. loolu du suñ cër mm. di woyaan tel telle personne kii euh, moo baax kii moo baax surtout wàllu politique bi mm-hmm. foog gars yi dellu saa seen xel mm-hmm. te loolu itam ñun correct du ñu bàyyi am na yoo xam ne dinañ jëflante gars yi mm. parce que dañ loo xam ne xel mënu koo nangu. Mm. nañu nekk ay journaliste nekk ay ndey ji seex. Mm. tëddee njaaxaanaay yemale ñëpp. ci njiitu réew ma. ba mm. ci gën a ki gën néew doole. ñoom ñëpp war a yem ci ñun parce que ñun ñoom euh, dañuy. ñun daal genre arbitre la war a nekk. parce que boo boo boo jengee rek. baaxul. voilà ñu koy remercier bu baax a baax Mamadou Thior nekk président bu conseil pour l'observation des règles euh, d'éthique et de déontologie ñu koy remercier bu baax a baax di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun euh, chaque samedi de 10h à 11h di remercie Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu site internet www.rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité. activité